wax daara wax ndeyu daara ndax biir kër yi sax boo waxee doom da ngay wax yaay kon tey ñun ñooy yaayu xale yi gàcce mën nag Jurbel ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ndax tey daara ji ñu ngi fi plus de 1000 xale ñoo fi nekk ay taalibe te ku ci nekk bu mu di jotee am nga sa yaayu daara ba nga xam ne fa ngay dem jëlee sa añ wax dëgg yàlla yelwaan gi daal sonnalatu leen kon lii rëlu yaayu daara mooy lii rëlu yaay ci biir kër gi rek xale yi ñun leen di toppatoo si ci seen wérgu yaram ci seen set ak seen dëkkuwaay ak fi ñu nekk ak lépp la ñuy lijjanti nga xam ne ñooy dox seen digganteeg sëriñ si ñooy dox seen digganteeg daara ji ñoo leen di lijjanti ñoo leen di toppatoo. appel bi may def si ndeyu daara yi mooy ku ci nekk am nga sa doom yaa ngi koy jox mu lekk yaa ngi koy jox mu sol mu bëri mu néew ñu ngi koy dimbale mu faju mais dafa am leneen lu ñu beneen décision mu ndeyu daara yi jël mooy enrôlement xale yi si CMU. mooy maladie universelle bi léegi ñu doon def appel ci ndey daara yi li ñuy ñaan rek une femme un taalibe la ñu wax ngay yaay daara bañ nekk yaay daara ku ci am mën a man benn ndax dañ ne mille francs par taalibe su fekkee en milieu euh, ci côté dispensaire lay fajo su fekkee ne aussi hôpital lay fajoo 3500 mais dañ ko yombal mille francs bi nga xam ne ci dispensaire bi lay fajo su ko defee yaay daara bu nekk mën a am possibilité sa xale bi nga yor nga mën ko jël en charge ku benn jël benn ku mën fukk jël fukk lu waay mën i tamit ñu ngi tàllal loxo ñëpp pour que ñu mën a enrôler xale yëpp incha allah pour ñu mën seen faju yomb am nañ gaa dispensaire boo xam ne xale yëpp fi la ñuy fajoo mu nekk kër gu mag waaye dañu bëgg xale bi fu mu toll rek mu jege poste santé bi nga xam ne fi lañ ko war a fajee ba tax ñuy ñaan ndeyu daara bu ne mu enrôler ay xale ba nga xam ne xale bu nekk fi nga nekk mën nga fa fajoo facilement te fekk demoo ba kër gu mag ñu gën a fi mu ne ni pour taxaw daara yi mooy comme daara ji rek ni mu toll plus de xale fu ñuy yeewoo ak presque 92 enseignants ay jàngalekat su doon suñu sago tey dinañ am suñu infirmerie ba nga xam ne mu ngi ci biir daara ji jege ñu am suñuy garab ku wax jàng wér ngay njëkk a wax mu ñu mën di ñu saytul wér gu yaramu xale yi ak wér yaram yaramu jàngalekat yi li ñu bëggoon aussi pour xaw a mën a wàññi yelwaan gi tuuti tuddul sax yelwaan ndax daanaka ñu ci bëri dañoo am ay yaay daara waaye ñu mën a am cantine ci biir daara ji ba nga xam ne bii ci la ñuy jàppalee xale yi di leen toggal wàllu fóot bi aussi ak set bi ñu ngi doon ñaan su fekkee mun nañu am ndax fi mu ne nii dañuy dajale ay saabu di jox ay bon volonté ju di ñu jàppale di ñu jàppale ci saabu yi di ñu jàppale ci leen di fóotal suñu mënoon a am aussi machine ya nga xam ne lu bon bon bon xale yi dinañ leen mën a jàppale ba nga xam ne tilim ci boppam mooy denc taalibe loolu tamit ñu ngi koy saaku di tàllal loxo daal képp kuy wax shadoon laa ilaaha illallah nga mun ñoo jàppale ci daara ji ba enseignant yi fi nekk tey bénévole ndax daara ji ñu benn dara xale yi dañ fiy jàng gratuitement enseignant yi fi nekk ñi war a tolloog ci juróom-ñeent fukk ak nangam di fi xëy yor njaboot yor lépp bu doon suñu sago ñu am lu leen jàppalee ba tax dana am lu ñu bàyyi seen kër ku mën a jàppale daara ji